ca la woon alhaaj Jaañ nekkoon attekat bu mag bu ndakaaru ba ca la woon Seydina Mandione Laay toppoon ci xalifa Laayeen yi jamono yooye muy Seydina Isaa Laay ca la woon Sidi Lamin Kunta ca Njaasaan moom itam ca loolu rek mooy comité directeur bi waaye bu dañu bokkoon ci conseil bi ñeneen bokk na ci euh, alaaj Ibrahima Seck bu Canaba bokkoon na ci alaaj Ahmad Dem bu Sookoon ak doomam sëñ Mouhamad Dem alaaj Ahmad Njegéen bu cees ak euh, ñeneen ku mel ne sëñ Cheikh Ndiaye Mabéy moom euh, sëñ sëñ Mouhamad Ndiaye Mabé moom ndar moomee nga xam ne am na lu mu sëñ bi ba muy dem ca géej gi kon ñooñu ñooy ñu nekkoon ci conseil supérieur islamique bi bi ñu leen ko joxee nuñ def dañ koo jël laaj leen itam yeneen document yi ñu war a aajowoo yëpp ndax loi am na yeneen document yu muy àndal mooy ñoom fañ sukkandiku ñoom ñu ko doon tëral fañ sukkandiku ak li ñuy tuddee rapport de de présentation mooy wane li tax ñu indi loi bi ak yu mel noonu document yëpp dañ ko laaj ak projet de loi bi ñoom kilifay lislaam yi ñu jël ko jàng ko benn benn jàng ko benn benn article yi ñu wax nii yi mujj doon juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent bu ci ne dañ ko jàng benn benn fuñ ci àgg ci lu wuuteeg lislaam ñu ñu ñu fésal ko ba mu jeex bi mu jeexee ñoom ñu gis ne lu mat juróom-ñaar fukki article ak ñeent ñi ngi ci yu wuuteeg lislaam loolu lañ ci génne juróom-ñaar fukk ak ñeent yoo xam ne dafa safaanoo ak lislaam ñu gis ne it am na yeneen buntu yoo xam ne waroon na cee ñëw te ñëwu ci yeneen bunt yu ci waroon ñëw te ñëw ci yoo xam ne lislaam moom buy wax ci wàllu njaboot ak nit ki dana ko indiwaale téere lislaam yi jàngale wàllu yooyu danañ indi bunt yooyu te ñëwul ci code bi ñu wax leen ne yii ñëw ci te war na cee ñëw kon gis nañ ci lu ci nekk te waru cee nekk ndax wute gu mu wute ak lislaam gis nañ itam lu ñëwut te jàpp ne war naa ñëw lépp ñu wane ko daal di bind lépp dajeeg Abdou juuf mu nekkoon premier ministre jébbal ko ne ko nag lii woteeg lislaam moom mënuñ koo nangu nanguwuñ ko moom amu ci lan lu ñuy lu ñuy làq-làqal dañ koy wax mu leer naañ ñi ne nanguwuñ ko lu woteeg lislaam nanguwuñ ko abdu juuf bi mu ko jël ñoom nee na leen baax na dinañ bàyyi xel ci seeni xalaat loolu la euh, waaye toogaat nañ lu mat at luwaa bi door a génn te lañ waxoon amut leen luñ ci bàyyi xel te diggoon nañ leen ko ab Diouf mi mi nekkoon premier ministre bi mu bi mu ko jëlee ñoom ne ñoom ñu wax ko loolu ne ko mënuñ cee ànd ndax wute gi mu wuteeg lislaam li fekk soppiwuñ yooyu ba mu dëppoog lislaam duñ ci ànd mu ne leen baax na daañ bàyyi xel ci la ngeen wax waaye taxul ñu ñu bàyyi ci xel ñoom lettre ba ñu doon jébbale biñ xoolee ba seeni xalaat bañ koy jébbale dañ ko booleeg lettre boo xam ne le 13 mai 1972 lañ ko bind boole ko ak yii yëpp dañ ko génne article sàngam dafa wut ak lislaam tudd ko ba mat juróom-ñaar fukk ak ñeent nangam ak nangam ak nangam nangam ñëw ci te da cee war a ñëw ñu def loola kon ñoom la leen ca waroon ci wàll googu def nañ ko lettre boobu ñett ñi jiite woon ñoo ko signé sëñ Nourtal alhaaj sëñ Nourtal alhaaj Abdou Aziz Sy ak sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ñoo signé lettre boobu nga xam ne le mais mai 72 lañ ko lañ ko signé boole kook liñ gis ñoom jébbale ko bokk na ca lañ ca wax wane seen xalaat dañ nañ nun daal warugar wii nu am ci diine ji warugar wii nu ci am moo tax ñuy leeral nañ ñi suñ taxawaay ci lu mel nii mooy ne dañuy bañ ba mat sëkk di ko bañeek doole itam lépp loo xam ne dafa wuuteeg lislaam donte day loo xam ne ab gouvernement moo ko bëgg donte day bu nekk officiel bu de bu dee officiel yi waaye dafa wuteeg lislaam duñ ko nangu dañ koy wax bu leer itam ba ñuy tëj ñu wax ne ci ci document yooyu ñu doon laaj ministre de de la justice yoo xam ne document boo xam ne orientation la woon moom lañ moom la waxoon nañ ci bàyyi xel bokk na ci dana leen woon moom ministre bi da wax dafa wax ne mënuñoo mënuñoo ga mënuñoo ga mënuñoo gàll atteb lislaam vingt pour cent yi sénégalais yi nga xam duñu ay jullit ministre de la justice moo waxoon loolu mënuñoo ga atteb lislaam mënuñoo gàll atteb lislaam imposé vingt pour cent yi dul ay jullit ci réew mi vingt yi sax wax la waaye àggu ci mosu cee àgg vingt pour cent moom ñi du julli ci Sénégal mosu cee àgg jamono yooyu cinq lañ daan wax jamono yooyu ay soixante onze yooyu waaye moom vingt pour sax mu nekkoon <coughs> mënuñoo gàll yi dul jullit ci Sénégal mënuñu leen gàll àtteem lislaam ndax laïcité bi loolu la laaj warmaal ngëm ngëm ngëm yi ñëpp itam loolu la laaj mooy bañ leen a gàll aateb lislaam moo tax kilifa diine wax ne ministre bi lii mu wax nii ci document boobu man nañ cee ànd man nañoo ànd ci ne bun bun gàll ku dul ab jullit aateb lislaam man nañ cee ànd waaye lu tax nag ñuy gàll ab jullit moom aate bu wuuteeg bu lislaam nee ngeen 20 pour cent yii du ngeen waruñu leen a gàll àtte bi lislaam ndax du ñu ay jullit lu tax na kon 80 pour cent yi ñoom di ay jullit ñu leen di gàll àtte bu safaanoog bu lislaam kilifa yii waa conseil bi ne leen lu tey ngeen bàyyi mbir yi nim ni meloon ni meloon mooy bi fi tubaab bii nekk jullit ñi dañoo amoon seen côté bopp bu leen di àtte jullit ñi da daam seen côté bopp bu leen di àtte bu dëppoog lislaam mu am beneen code boo xam ne ñeneen ñi ci bëgg attew ñoo ci attewo lu te ngeen ngeen def noonu wéyal loolu bu fekkee bëggu leen a gàll ku dul ab jullit atteb lislaam lu tax bëgg gàllu jullit nag atte bu safaanoog lislaam te tubaab bi fi nekkee moom defutoon loolu ci lii ci wàll gi wàllu statut statut personnel tubaab bi defutoon loolu bàyyi noo fi yoon woo xam ne moo doon atte moo doon atte jullit ñi tam dëppoog lislaam lu te kon ngeen bàyyi fi loolu laïcité bi ngeen di wax Serigne see koy wax de laïcité bi ngeen di wax lim laajoon kon mooy ngeen bàyyi fi li fi nekkoon julli ñi di àtte woo àtte boo xam ne dafa dëppoo ak lislaam keneen ku bëgg a àtte woo beneen àtte bu ngeen tëral da ci àtte woo ndax tubaab fi nekk loolu ñoom xam nga bi ñu amee indépendance dañ ne woon dañoo bëgg wut benn loi ndax ay kii wuute dafay nekkoon ñu ne dañoo bëgg benn loi rek boo xam ne mooy àtte ñëpp sëriñ si nag ne ren loolu nag moom moom moom moo dul jaadu boobaa benn loi buy àtte ñëpp ngeen ne nag duñ gàll vingt pour cent yi àttee lislaam ba noppi nangoo gàll quatre-vingt pour cent yi nag àtte bu safaanoo ak seen diine loolu tam lu lu lu lu xel nangu lu xel nangu kon bu ngeen bëggoon a tënku ci li ngeen di wax laaj dëgg-dëgg ne da ngeen a warmaal ngëm-ngëmi nit ñi dëgg-dëgg kon mooy da ngeen di bàyyi ku ne la koy àttee dëppoo ak diineem kon sëriñ si ndax boobu ndax sëriñ si lañu woon sëriñ si ñoo jiite lislaam ci Sénégal conseil boobu moo leen ëmboon bañ ko jëlee benn benn xool ko jàng ko tontu loolu lañu defoon ci jamono yooyu itam bi jàllee am na yeneen kilifa yoo xam ne ñenn ñi bokkoon nañ ci biir conseil bi am na ñoo xam ne bokkuñ ci woon sax waaye ñoom wax nañ ci seen xalaat Seydina Issa Laye moo nekkoon xalif général de Layène Seydina Mandione mi nekkoon toppoon ci moom moom mi ngi woon ci conseil bi waaye Seydina Issa Laye wax na ca dane woon nun sunu loi mooy lislaam kenn ci suñuy taalibe du àttewoo ci seen code bi ci mbirum séyam mbirum paseem mbirum miraasam kenn ci suñuy taalibe du àttewoo ci seen code bi sëñ Abdul Ahad waxoon ne code bii de du dugg du dugg Tuubaa moom du dugg Tuubaa ndax àtteb yàlla lañu war a topp bu yàlla xasee àtte amul beneen àtte bu war bu ñuy teg ci wetam ak ku atte ku mën di doon nag wari su ko teg ci wetu atte bi yàlla ndax yàlla du juum te nit ñi dañuy juum loolu la waxoon la Hadj Abdou Aziz moom ci conseil bi la bokkoon ñi ko jiite waaye teewut mu waxaat ne loi bii amul place ci Sénégal mooy waruta waruta dikk Sénégal waru fee nekk kenn kuy tëral yoon itam sañuuta ganit ñi gàll leen ay loi yoo xam ne xamuñ ko bokkut ak seen i ngëm-ngëm bokkut ak seen diine rawatina nag mu safaanoo lool seeni ngëm ngëm yi nga xam ne mooy ngëm-ngëmi lislaam sëñ Cheikh Gaynde Fatma ci conseil bi la bokkoon bokk ci ñi ko jiite waaye yemut ci liggéeyu conseil bi waaye bi mu jàllee itam daa bindal boppam moom ab téere boo xam ne xam naa ñu bari xam nañ ko tudde ko kalimatullahi hiya al-ulya moom it di ci di ci diingat code bi ndax lépp mooy atte la boo xam ne dafa dafa safaanoo ak àttab yàlla te lu safaanoo ak àttab yàlla nag kenn ko war a jëfandikoo ba ko bindee dafa war kilifa yu bari ci réew mi ñu jàng ko ñoom it bind ci ànd guñ ci ànd mat na lu fukk ak ñett ñoo xam ne ku ci ne bind na wala ne ànd na ci lii sëñ Cheikh Mbacke wax sëñ Abdoul Ahad ci la sëñ Abdoul Xaadir ci la sëñ Saaleh sëñ Chouaïb sëñ Murtada ak sëñ Abibu bu dee ci waa fii ak sëñ Cheikh Aw la sëñ Mahmadan Koso bu dee ci waa fii Alaaji Aziz Si ak ab naaru gànnaar bu ñuy wax Cheikh Mohamad Ibn Abdul Madian Ashanqiti oustaz alhaaj moustapha an ak tallari ak sëñ moustapha Diop kayel ak sëñ basiru Seck euh, ñoo ñëpp téereb sëñ Cheikh bi jàng nañ ko bind wane ne ànd nañu moom ci loolu mu wax kon loolu démb la mooy ba muy door a génn rek ñi jiite woon lislaam ci senegaal wane woon nañ seen ñàkk seen ñàkk ànd ci anam gu leer nañ biñ demee ba jëmmi jamono it ñi jiite lislaam ci Sénégal am na jëmmi jamono ci ginnaaw bi it ñu jógaat wanewaat ñàkk ànd guñ ñàkk ànd waaye booba yemuñ ca sax waaye dañoo jóg sax dox yi jéego ngir indi lu ko wuutu indi lu ko wuutu lu ko wuutu ngir jullit ñi loo xam ne moom mooy wuutu code de la famille ci jullit ñi buñ fi bëggee bàyyi code bee ñu bàyyi ko fi keneen ku ci bëgg a àttewu àttewu ci waa jullit ñi moom ñu wutal leen lu ñuy àttewoo loo xam day dëppoo ak seen diine loolu kuréel yu yëngut ci lislaam ñoo ko ñoo yëkkati xalaat bi ñu tuddee association islamique yi amoon na lu ñu daan tuddee collectif des des associations islamiques du Sénégal ñoo ko xalaatoon ci diggi ci diggi 90 yi année 90 1996 Jaañ xalaatoon ne daal dii ngat ko rek doyut waaye dañoo war a ko wuut ay borom xam-xam ci wàllu yu wuute nañ caa nekk ay avocat ngi ci ay borom xam-xam lislaam a ngi ci boroom xam ay ay kii ñëpp a ngi ci maanaam ay juriste daal ñu xam yoonu yoonu réew mi ñu ngi ci ñu tàmbuli loolu di ko liggéey ba 2000 ba am lu ñu tuddee code de statut personnel ñu tuddee ko mudawwanatul ahwaali shaxsiya ñu ne bii dañoo war a dox ba mu nekk fi jullit ñi di ci attewoo bee bu fi dee nekk itam keneen ku dul jullit bu ci bëggee attewoo attewoo ci ndax ñoom dañoo gis ne lool wàññiwul dara ci wàll gi am réew am lu ëpp benn benn code ci wàll gi wàññiwul dara am na ci àddina si te yàqul dara ndax ginnaaw dafa aju jëmmi nit ki loo xam ne moom pas-pas da ca am doole lool la ca gën mooy kenn ko ne lañ koy àttee dëppoo ak pas-pasam bu fekkee ñi ne ci réew mi nag seeni pas-pas du du du lenn kon lay gën mooy kenn ku ne ñu wutal ko lu dëppoo ak pas-pasam loolu aayut ñu wane ne loolu aayut mi ngi am ci àddina si te wàññiwut dara ñoom nag liñ ko jàppeelu aay ba tax ñu bëgg ko fee dindi ci lañ indeelu aay ñoom ndax biñ ko dindee lañ bëgg a jullit ñi ñoom atte yoo xam ne daal safaanoo ak seen diine ñu ne ñun nañ tëral loo xam ne moom nañ nañ dox ba jullit ñi moom ñu leen ci àtte ñeneen ñi ne ci bëgg wala fi nekkoon di di di di di ca àtte ñu nekk ca 96 ba 2000 di liggéey euh, code de statut personnel boobu biñ ko liggéeyee ñoom it doon na lu mat ñaar téeméeri àtte ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn moo gën a new fuuf la nekk ca code code code de la famille waaye teewut wàll yi ci war ñoo yëpp ñëw na ci ba wàll yi sëriñ si waxoon ne des na ci code la famille bi sax ñoom indiwaal nañ ko indiwaal nañ ko liñ ko noppee nag ñu wër ay association ñoo ko tàmbali woon biñ ko noppee nag ñu wër ci kër yi diine yi li ñu tuddee këri këri diine mooy tarixa yi ñu jiite tarixa yi ci réew mi fu ci nañu dem fa won leen ba noppi ubbil leen buntub ñu man cee bokk war ne liggéey bi tëjuwut tëju tëjuwut daal def nañ ci dara waaye lii ñu defit dañ koy teg seen kanam lu ngeen ci bëgg a yokk mbaa ngeen bëgg ko ca wàññi itam mën na caa nekk bañ ko defee kilifa diine yi ñenn ñi ñoo teewal seen bopp ay kilifa yu mag ñenn ñi ñoo ñu tànn ñu leen fa teewal man man ñi bokkoon naa ci ñi fa teewaloon sëñ Murtala nga xam ne lañ jotoon a liggéey dañ koo xoolaat ba dëppoowaat ci lépp alhaji abdul euh, sëñ abdul aziz al ibn al ibn al amin moom moo daan teewal boppam ca liggéey boobu loolu ñu nekk ca ba mu noppi ci 2002 bi mu noppee 2002 bi ñu demee ba 2003 ñu woote ndaje bu yaatoo yaatu ci institut islamique bu Dakar wooti ñi ñi jiite lislaam ci réew mi ak ñi yëngut ci lislaam ci réew mi ngir xamal leen liggéey boobu ngir bëgg buñ dee dox ngir mu mën a sotti ñëpp mën cee jàpp loolu yàlla dogal na bañ koy def fit ba ñuy jottali liggéey bi man mii lañ ko santoon ci institut islamique bu Dakar doonoon le 8 mars 2003 liggéey bi sotti kilifa yi ànd ci ñu nekkoon nañ dox ngir mu sotti te sotti sotti lu mel nii moom mooy rek bu dee Sénégal fi ci gën a yomb mooy bu ñu mënoon a fexe ba président nangu ko président la république bu Sénégal lu nangu ci wàll yi mel nii moom day daal di yomb assemblée la war a dem ñoo koy voté waaye assemblée ci Sénégal xamees na ni mu demee. foofa rek la gàllankoor ñëwee nag ba sotti foofu la gàllankooroo waaye liggéey bi liggéey nañ ko ba mu sotti kilifa yépp ànd ci waaye nag ki ko mën a sottal te mooy président de la république foofa la yëf ya gàllankoore ba sottiwul kon ca njëlbeen ga kilifay lislaam yi defoon nañ ci liñ ci man bañ demaatee ba 96 mu ñaar fukki ginnaaw bi ñaar fukki at ak nangam seenu njabootam jógaat nañ taxaw ci ba tey des na ba tey sottegul bi sax imaam imaam Mbaye Niang imaam mbay ñaŋ daa bokkoon ci ñu jiite woon kuréel yi yu doon liggéey liggéey boobu ba noppi ginnaaw bi mu nekk député bi mu nekkee député sax fekk na liggéey bi noppi na lu yàgg bi mu nekkee député moom jël na ko moom ndax député sañ na loolu sañ naa def lu ñuy tuddee proposition de loi mooy député sañ naa proposé assemblée nationale ab loi def na ko waaye moom it jàllut jàllut moom moom bi mu nekkee député te fekk ñu liggéey liggéey bi te bañ koy liggéey te ña ko liggéey la bokkoon ña ko jiite woon sax laay wax ndax jumaa ji xalaat bi juddoo woon moo ko daan jiite wala ci ña fa daan jiite la bokkoon jumaa ji nekkoon aéroport dakaar ñu daan ko wax mosquée inachevée fala xalaat bi juddoo woon 96 moom ca ilimaan yi fa gënoon a fés la bokkoon ki jiite woon tam mooy ki ñu daan wax maître Babacar Niang avocat la woon moom waaye daa bëggoon diine rawat na ci mu jëm fekk na boobu mu ngi mi ngi ngi doon si mag retraité na bëggoon diine mu jiite woon liggéey boobu ak imam Mbaye Niang moomu ak nag ñi leen ci fekk si ginnaaw bi ci këri këri diine yi kon loolu lépp taxawaay la bu am bu dee ci kilifa yi ci kilifa yi bu dee ci mbooloo mi nag muy sénégalais yi seen bopp société bi ban taxawaay lañu am ci kot bi kon kilifa yi ñoom seen taxawaay mooy bañ ko bañ ko ci nim nekke nii ndax wuuteeg gum wuuteeg lislaam ci lu bari yemuñ ci bañ ko waaye indi sax lu ko mën a wuutu loo xam ne moom daañu ci mën a àtte jullit ñi te mu dëppoo ak lislaam bu dee nag société bi ci boppam moom moom seen taxawaay moo gën a mooy moom dañ koo dañ koo faalewut dañ ko faalewut dañ koo xamut dañ ko yëgut dañ ko yëgut far moom bu dee yi moom société bi population moom dañoo yëgut sax code bi far dañ ko yëgut dañ koo xamut xamuñ ne am na sax loolu moom moo gën a metti lépp ci kuy tëral kuy tëral kuy tëral ne da ngay tëralal nit ñi aw yoon ba noppi ñoom xamuñ ko far yéemuñ koo xam toppatoo wuñ ko loolu mooy li am nit ñi ci Sénégalais yi ñu néew a néew a néew ñoo ci bàyyi xel code de la famille ci li ñuy def lu dul loo mënut dara rek nga xam mënoo mënoo ko ñàkk def lu mel ne kayit yi ñuy wut ni yooyu yëpp code de la moo ko tëral kayit yii ay extrait de naissance ay kayitu juddu yooyu yëpp code la famille moo ko tëral yooyu moom nit ki da koy aajoo mënu ko ñàkk bu koy wut sax du xam ne sax code la famille moo ko tëral du ko xam sax dana damay wuti kayit sàngam rek waaye moom xam ne nangam mbirum code la famille la nga ko yittewoo di ko toppatoo ji moom amul ci population bi xamuñ ko sax daanaka fu ñu seqeeg moom rek ñàkk pexe la dañ leen faa yóbbu waaye duñ fa demal seen bopp xamuñ ko loolu nag li muy wone mooy ne kon da dut bu baax da bu baax loi bu baax daa war a doon lu nit ñi yittewoo lu nit ñi di xam lu nit ñi di jëfandikoo waaye bari na ci nit ñi dana ci am ñu dund ba faatu te duñ masa xam code de la famille duñ ko xam benn yoon duñ def lenn loo xam ne dañ koy def ci biir code ci tuuru code de la famille ñu ngi takk seeni sëy di ko tas seen yoon nekkut ko de la famille xamuñ ko itam ña ngay faatu ñi leen di denc di leen miraas def lépp te ña koy def ñëpp seen yoon nekkul ci code de la famille xamuñ ko sax mooy li sëñ sa waxoon rek la sëñam laa ne ak si Touba rek ak si Touba ak si mooy xamuñ ko xamuñ ko tënkuwuñ ci jéemuñ koo xam Seydina Issa Laye la mu waxoon ne suñ suñu taalibe du ñëw ci kii di ci moo am ci ñëpp rek far Sénégal gépp noonu la fi demee code de la famille amul Sénégal xam naa bu amee ñu ko xam di ko bàyyi xel di ko yittewoo ñu néew a néew néew a lañ doon foog naa sax daal képp ku ku ku ku séq ak moom rek day loo xam ne mënu ca dara wala dañ ko fa yóbbu waaye du moom moo jógal boppam demal boppam ngir tënku ci ko de la famille loolu nag li muy wane rek mooy ne du loi bu baax loi bu baax moom du mel noonu luwa boo xam day mel ne amut day mel ne amut ndax nit ñi taxoon ñu koy tëral yëguñ ko xamuñ ko yitte woowuñ ko loolu rek day wane ne kon du luwaa bu baax li ci des kon mooy ëllëgam kon luwaa bu baaxul nag li ci gën rek mooy soppi soppi rek moo ci gën ndax lu doomu aadama tëral la te ci luwaa yépp lañ xam loolu biñ ko tëralee 72 ba 89 dugal nañ ci coppi mooy wane ne kon xam nañ ne loi bu ne moom dana laaj soppi bii nag da cee raw ndax boo xam ne bañ ko tëralee ba nëgë ni fi mu ne ñaata daanaka juróom fukki la fi na ne mat juróom fukki at te waa réew mi xamuñ ko yitte ko loi boobu dañoo war xam nag du loi bu baax du bu baax loi bu baax day loi bu nit ñi di xam di ko yitte woo ginnaaw baaxoon nag jéem a wut luwaa bu baax rek mooy ciy pexe te mel na ne lii ñu defoon ci diggante 96 ba 2003 mel na ne loolu mooy mooy pexe mi ci man dara bi ne laïcité lañ nekk réew mi yépp duñ leen gàll àtteb diine jenn diine loolu mën nañ ko nangu ci turu laïcité waaye ba tey ci turu laïcité woo itam nag lañ naan leen itam ñu gëm diine it duñ leen teg atte yoo xam ne daal safaanoog seen diine jooje kon li am rek mooy ñu tëralal leen atte bu dëppoo ak seen diine bàyyi fii bii fi nekkoon ñeneen ñu dul ay jullit ñoom bu fekkee baax na ak ñoom ñoom ñu mën cee attewu buñ ca bëggee soppi dara itam ba mu baax ak ñoom ñu mën cee soppi dara mu baax ak ñoom waaye daal li la justice waxoon ba ñuy tëral loi bi ne mënuñu mënuñoo gàll atteb lislaam vingt pour cent yi ne Sénégal te duñu ay jullit loolu bu doon dëgg ci ñoom dañ caa war a déggee it ne kon quatre pour cent yi ay jullit itam waruñu leen a gàll loi boo xam ne day safaanoo ak seen diine loolu moo foofu la xel mi war a àgg foofu lañ ko waroon àggalee te lee tax ñu mën ko kon nag mooy indi indi ñaari kii rek andi ñaari andi ñaari code ñu andi ñaari code code boo xam ne jullit ñi lañ lañ ciy atte ak beneen boo xam ne ñi dul jullit buñ ca bëggee atte woo mën ta atte woo loolu laa foog ne mooy pexe mi nga xam ne mooy mën a tax code bi doon code bu am njariñ code bu baax waaye buñ ko fi bàyyee te nit ñi xamuñ ko rek day wane ne baaxut amul njariñ te day jur nag ay lor yu bare bare bari day jur ay lor yu bari ndax nit koo xam ne xamut ne code bi am na bàyyiwu ko xel ndax amut jeexi daal ci dundam waaye léeg-léeg muy séq ak nit ci lim xam moom jekki-jekki kooka moom dugal ko ci affaire code bi yu doy waar day xew ci Sénégal yoo xam ne loolu koy waral xam nga ci misaal li jeexalub sëy ni ñu ko waxee ci lislaam te Sénégal gépp moom la ñuy doxal mooy góor sañ naa fase bu fase li ko lislaam sant nag mooy bu fasee na jox jigéen ji ndàmpaay na jàpp idda bu idda ja jeexee jigéen ji sañ naa sëy keneen waaye fi mu ne looloo ngi am ci Sénégal loolu am ba noppi ci góor ñi nga xam ne matuñ lañ doon bari na ci góor yi ñoo xam ne dañuy sëy ak jigéen ba noppi dem ba seen diggante munta wéyati waaye ñu koy xor ñooñeel di ko noggutu di ko teg ay coono mën nañoo dem ba ne fase nañ ko sax ba mu jàpp iddaam ba mu jeex ba mu sëy keneen ñu xëy xëy dem ci yoon ne leen kee sama soxnaa tam tam nga dem di am di wut boroom kër ndax yoon nanguwut fase mi fase nanguwu ko fase jom la nanguwut moom fase naa la nga jàpp idda ak yooyu yëpp taxul mu jàppe ne moom sëy bi jeex na yoon yoon wii code la code de la famille bi nit ñaa koy def tàggoog seen soxna ci anam gi ñëpp xam ci senegal ba soxna sa fàtte ko ba dem sëy keneen ñu xëy xëy rek ñu woo ko tribunal ne ko yow da ngaa dem di wut borom kër te fekk am nga borom kër mu ne lan mu ne ko waaw ndax ñoom nee nañ tribunal rek mooy jeexal ab sëy te boobu tribunal mosu koo jeexal kon moo fi nekk ñu ci àtte jigéen ñi di leen ci di leen ci daan te li ko waral mooy code bu baaxut bu nit ñi xamul tënkuwuñ ci ba noppi léeg-léeg nag ku leen bëgg a dëngee jekki-jekki dóor leen ci code boobu mu teg leen ay fitna yoo xam ne kenn du xam lan la li gën mooy andil nit ñi code yoo xam ne day doon luñ xam luñ nangu lu ñuy tënku ndax code loolu war a jariñ muy Euh, nos dundiinu nit ñi ci anam guy tax jàmmoo am déggoo am loolu la ko war a jariñ waaye bu demee nii moom safaan bi lay jur ndax nit ñi ñoom am na anam gu ñuy dunde noo xam ne jàmm nga cay am déggoo nga cay am na ngay takk seeni sëy di fasante seen biir di miiras seeni miiras te ci jàmmoo lañ koy defee ak lépp waaye ñu teg fee loo xam ne nag moom xamuñ ci dara ñoom te léeg-léeg am ku leen ca yóbbu mu andi leen fitna ci miraas yi da ciy am miraas yi da ci am ñoo xam dañuy miraas seenu miraas ku faatu ñu woo boroom xam-xamul islaam mu ñëw miraas ko loolu loolu lañ xam te loolu la yàlla digle ñu miraas ko ba lépp nag ba njàpp ne ko ne am na la mu war a am am ci ku jubari ci ñoom koo xam ne bëgg naa am lu gën a bari xëy na tax mu dem moom mboole ji leen ne suñ suñ ñu diw dafay jógee te miraas mi defuñ ko wala jaarlañ ko ci yoon bu ko defee fitna code bi teg fitna nit ñi lépp mooy loolu warta tax a jóg ab code muy loi di teg nit ñi fitna taxu koo jóg waaye jële fi fitna moo ko war a tax a jóg lay tax nag man fee jële fitna mooy mu doon lu nit ñi xam nangu ko mu dëppoo ak seeni gëm-gëm loolu kon mooy tax kot bi am njariñ mooy tax mu mën a jur li code war a jur mooy li aw ab loi war a jur li aw tëraliin war a jur ci andi jàmm akub déggoo ci biir nit ñi waaye kon liñ jàpp nañu mooy ëllëgu code bi mooy ñu benn ñu indi beneen code boo xam ne moom dañ ci àtte jullit ñi walla ñu defar bee ba dëppoo ak lislaam xëy na li gën a yomb nag indi beneen boo xam ne moom dañ koy sukkandikoo ci lislaam rek muy àtte jullit ñi ñu bàyyi fa bee nag ku dul jullit ku ci bëgg àtte mu àtte la waaye leneen am na mooy kot bi fi ne li muy juuyoo juuyoo juuyoo ak lislaam am na ñoo xam ne ci réew mi ñoom dañoo jàpp ne fi ñu war a àgg ci sori lislaam àgg àgguñ ko te dañ fa war a àgg fi ñu war a àgg ci soore lislaam àgg guñ fa te dañ faa war a àgg mooy am na ñoo xam ne cod bi lii lii lii ci nekk nii boo ko xool ci lislaam da nga naan dafa sore lislaam lool am na ñoo xam ne ñoom dañoo dafa jege lislaam dañ ko war a gën a sore te ñu ngi ciy dox ñu ciy dox Abdou Diouf mii nekkoon premier nga xam ne sëriñ si ñoom moom lañ joxoon seen lañ ci seetlu waxoon ko ci seen làmmiñ nit ne ko nanguwuñ ko te lii tax nanguwuñ ko mu ne leen daañ ci bàyyi xel Abdou Diouf moomu ginnaaw bi moo fi taxaw wax ne euh, fi ñu war a àgg nit ñee doy waar rek waaye fi ñu war a àgg ci Sénégal mooy dem ba kenn du weesu ñaari soxna ba kenn du mën a weesu ñaari soxna ndax fi mu ne lim maye moom mooy nit ki ci njëlbeen gi danaan man nag man na maa dem ba ñeenti soxna walla mu ne man nag man na maa dem ba ñetti soxna wala mu ne man nag man na maa am ba ñaari soxna wala mu ne man nag seen soxna rek laay am code bi nii loolu la wax nee na kii ne seen soxna rek laay laay mën a am bu ko xasee wax ba àddinaam di tukki moom mënut a soppi loolu kii mu doon sëyal ba tax mu wax ko buñ tàggoo itam du tax mu saña weesu mukk moom seen soxna ba àddinaam di tukki bu ne ñaari soxna laa duma ko weesu kon moom it ba àddinaam di tukki du sañ a weesu soxna donte ñam doon sëyal ba wax loola tàggoon ak ñoom itam du tax mu sañ a weesoot ñaari soxna waaye nag ñu ne ko sañoo weesu ñaari soxna yi waaye sañ nga nag ne ñaari soxna laa waxoon ne ci laa du ma ko weesu waaye léegi sax far du ma weesooti benn ñu ne quoi loolu mën nañ loolu mu nangu nañ koom moom nangu nangu nañ nga wàññi daal <laughs> waaye duñ nangu nga yokk boo du ma weesu ñetti soxna moom dañ ne quoi ah, nangu nañ nga jekki-jekki ne sax du ma weesooti ñaar wala du ma weesooti du ma weesooti eh, kenn waaye boo xasee wax ne du ma weesooti ñett rek doom doom doo sañ a waxati mukk ni mën na maa àgg ñeent boo xasee wax ne dama weesu kenn doo sañ a waxati mukk ne mën na ma àgg ñaar kon li nga xas wax doo sañ a yi lu ko ëpp waaye nag sañ ngaa wax lu ko yées loolu li muy firi mooy li ñu bëgg rek mooy dem ba nit ki moom seen soxna lay am Abdou Diouf moo waxal boppam moom ne bopp président la président la foog na 81 la ba mu jógee ci sommet bu Taïf sommet bu Taif bi ñu doon def 80 xam 82 la woon ba mu ca jógee la wax loolu ne sénégalais ñoo xaw a doy waar am ci ñoo xam ne dañuy kii rek waaye daal fi ñu war a àgg moom ma kenn bañ a weesu ñaari soxna am na loo xam ne code bi ba léegi day wax ne góor mooy kilifa ci njaboot gi kilifa góor gi la am na ñu taxaw temm ñu bëgg loolu dañ kilifteefu njaboot gi ñu bañ koo jagleel góor kon mooy ñun niñ man bokk ak kuréel yi ñu doon li yi daan liggéey ngir bëgg ñu soppi code bi ngir dafa soreek lislaam lool am na ñu taw temm ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne li li lu ci xaw nuru lislaam rek dañuy bëgg mu dañ dañuy bëgg mu dañ ndax ginnaaw nee nañ nit ki mën naa tànn ne moom sañ naa am ba ñeenti soxna loolu lu ko lislaam may la waaye am na ñu taxaw tam ci ne loolu moom dañoo war a fexe nag ba du ñu àgg foofu Abdou Diouf ne kon nañ fexe bam bopp ñu yem ci ñaar bopp ñaar ëpp na <laughs> moom nee na ñaar ëpp na kon ñu yem ci ñaar bopp sax bopp waaye dem bay ñett ak ñeent am na ñu taxaw tam ci loolu nga xam ne bu ñu sañoon dañuy dem bane kenn sañu am lu ëpp seen soxna ni mu amee ci yenn code yenn réew yu jullit am na réew jullit yu def yu def yu def code yu mel noonu góor mooy kilifa am na ñu taxaw temm ñoo xam ne bëgg nañoo dindi loolu bëgg nañoo dindi ne góor mooy kilifa ci njaboot gi kon mooy ñun lii ñuy xeeb sax am na ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne ëpp na li ñuy xeeb ak mbaaxam am na ñu jàpp sax ñoom ba tey am na lu ñu ci war a dindiwaat loo xam day gën a tax mu gën a soreeg lislaam mooy kon taxawaay baax na ci dëgg la dëgg la li ma ko waxee woon nit ñi yëguñ na bi am na te yàqalu leen lu bari loolu dëgg la fi ne mën nañoo wéy itam di dem noonu duñu yàqal dara lu bare waaye léeg-léeg mu yàqal nit nag léeg-léeg mu lor nit noonu bu nekkee Tuubaa mën nañuy kii lu ci baree bari duñ ci yëg dara waaye léeg-léeg nit dañ ko fay yóbbu te mën na ko lor lor ju metti li ma ko waxoon léegi jigéen joo xam ne anam gi ñu xamoon ci jeexal cib sëy ab sëyam jeex na ci ba ñëpp xam ne sëyam jeex na mu jàpp idda ba mu jeex ba mu dem sëyaat ak keneen kem doon sëyal bu njëkk ba koo dëngee tax mu yóbbu ko ci yoon dañ naan ko yow da ngaa wut boroom kër te fekk nga boroom kër te loolu yoon da koy tare dañ ko ciy daan te mi ngi am mi ngi am kon doonte mbooloo mi mën nañ koo bañ a yëg waaye teewul nag mi ngi lor nit ñi léeg-léeg am ñum lor lor yu metti yoo xam ne li ko waral rek mooy lim doon code boo xam ne du code bu baax ndax du code bu dëppoo ak ngëm-ngëmi nit ñi du code bu dëppoo ak liñ xam du code buñ xam ñoom du code buñ bëgg du code buñ yëg du ko du code buñ faale kon ëllëg daal soppi ko ci anam yooyu mooy tax mu am njariñ ba lañ koo soppee ci anam nag yu tax mu gën a bon te mooy yi may wax nii ñi taxaw temm bëgg kilifteef gi ñu jox góor ci njaboot gi ñu dindi ko booba day gën a bon ñi taxaw temm ci liñ ne sax nit ki man na ne man sañ na maa dem ba ñeent wala ñett wala ñaar ñi taxaw temm bëgg ci loolu dañ bëgg loolu dañ ñoom itam buñ dem buñ demoon ba loola am day gën a bon kon mooy ñi bëgg lu baax war nañ cee gaaw taxaw ba soppi am ci ci wàllu guy tax mu baax bu dul loolu ñeneen ñi bëgg leneen ñoom ña ngi cay xar seen tànk tuba ngir ay soppi am ci yoo xam ne bu ci amee noonu dañuy jàpp ne day gën a bon loolu sëriñ bay Galas mooy li nga xam ne jàppoon na ne wala su ko mën a waxtaane ci code de la famille bu Sénégal lan moo ci ne lan digganteem ak lislaam nu mu demee jullit ci Sénégal ban lañ ci am bañ koy door a teg ba nageen ni kilifa yi ak njaboot gi yépp ban taxawaay lañ am ci côté boobu loolu kon moo nekkoon ñu bëggoon a andi ci waxtaan wi Sëriñ Baye Galas noo ngi sant ñëpp di jégalu ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu